auzubillahi mina seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo leen ziar fu waay mën a nekk te ñaanal jàmm gudd fan wér-gu-yaram xéwal yaatu defar àddina ak àllaaxira ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallaahu alayhi wa sallam di ñaanal mboolem fu waay mën a nekk ci àdduna bi te ñu di ñaanal nag rawatina di ñaanal waa Daaru Salaam ñu abonné suñuy abonné di leen ñaan ngeen abonné suñ seen Daaru Salaam Chifaou te xam ne nag lépp luy njariñ dana fi jaar ci kàttanu suñu borom tabaaraka wa taala ndax Daaru Salaam Chifaou moom daa fas yéene ñëw pour indi solution ci jafe-jafe doomu aadama boo abonné nag bul fàtte bés tous cloche notification bi mooy waral abonné vidéo bu ñu dugal rek nga jot ci kon ñëw leen ñaan jàmm gudd fan wér xéwal yaatu tey nag ñu ñëw ci spécial néew doole ci sëy spécial noo néew doole ci sëy ndax néew doole ci sëy nag li ko mën a jox góor gi dafa bari waaye bala ñu leen a jox solution yi yi nga xamante ne ni mooy tax nit ki am kartan ci sëy faw ñu wax leen tamit yi nga xamante ne ni doomu adama bi da ko war a moytu ci wàllu lekkinam ak ci wàllu dundinam bu ko defee suñ borom mën na ko dimbali kàttanam mën a yàgg waaw ndax nag néew doole ci sëy xam nañ ne boo jël yenn aas yi tamit jëm mag c'est normal sa kàttan daa war a wàññeeku boo amee juróom-benn fukkat wala nga am juróom fukkat jëm juróom-benn juróom kooku normalement sa kàttan ci sëy moom dafa war a wàññeeku ndax yaa ngi magal kooku benn ci bu fekkee ne nit ki nga xam day jël pois wala yaramam bari graisse kooku tamit normalement sëyam day wàññeeku moo tax yenn jël pois yu baaxut wala ko yenn yaram yu am graisse yi lekk diw yu niin moo xam ni lekk kii dal yooyu tamit baaxut ci wàllu day yokk new kattan rek ak ki nga xam dafa ame suukar muy jabet kooku tamit dana dem ba da koy indi néew kartan ci wàllu sëyam ak ki nga xamante ni nii dafa day tux cigarette tuxkat cigarette tamit loolu yomb na ci moom mu amee néew doole ci wàllu kàttanu sëy ak ki nga xamante ni nii dafa amee ndoxu siti kooku dana dem ba néew doolem day am ci wàllu sëy ak ki nga xam ne dafa amee hémorragie moo xam interne bi la amee moo xam externe bi interne ak externe nag boo ko déggee mooy bu ne ci biir wala mu ci biti kooku tamit dana waral néew doole ci wàllu sëyam kon yii ma wax nii daal dana waral néew doole ci wàllu sëy bu dee sikkarat bi moom bàyyil tux bu dee jabet bi moom del jëf say traitement ni la ko docteur bi waxee bu dee poids bi ngay jël da ngay def entraînement bu ko def sa poids wàññeeku wala ngay jël limon bu ko def sa daan la dégraisser bu dee graisse gi tamit aussi noonu ngay jël limon bu ko daan la mën a dégraisser sa yaram wàññeeku nga def sport di a toog rek waaye boo toogee rek bu yàggee dalay indi néew doole ci wàllu sëy boo jëlee aas bi nag moom nga fexe koo faj bu dee ndox siti bi tamit nga faxe koo faj bu ko defee sa néew doole ci wàllu sëy dana mën naa dañ waaye balay booba ñu waxal leen ci nag comme que nit ki moom boo koy wax danga koy wax li mu war a moytu ci wàllu yooyu nga door ko wax garabam ndax lii indi lii may doole góor bari na bokk na ci boo ko mënee nga am reenu salaan ak reenu mbër boof bu ne ci boo ci amee juróomi reen rek wala ñeenti reen nga togg ko ci liitaru ndox ak genn wàll ba ñor nga koy jël nag kaasu wit boo ndékkee boo añee boo reere kooku ci kàttanu suñ borom tabaraka wa taala dana dolli góor doole lool boo mën am loolu nga wut garab bu ñuy wax ñama ko boo mën am ñama ko ba nga wut xabatu sawda doom bi nga wut ci ngëpp wut jar ngëpp loxo wut xorom pole ngëbu loxo wut ñetti muskàdd ut putikolaa ñetti doom nga boole leen def leen sunguf ban doon sunguf yi ma wax xabatu sawda doom bi boo ko mënta am tamit nga wut ñama bi nag moo gën a jafe lañu boo ko mënee am nga wut ñama ko wut jaral nga bu loxo wut xorom pole nga bu loxo wut muskàdd ñetti doom wut pitikolaa ñetti doom nga boole leen wol ko ba mokk nga def ko sunguf kii boo ko defee sunguf ba mu doon sunguf heure boo demee bay tëdd nga tàngal ndox moom tàng nga wut kudd bu ndaw def ci sa kaas tàngal ndox moom tàng nga sotti ci yëngal cinq minutes mu nga set nga jël nga def ko nag vingt heures avant ngay tëdd rek ci kàddu suñ borom koo jaxasoo loom yaakaar naa yaa koy daane kon yooyu moom la ñu leen ci wàllu néew kartan ndax am na ñu ko doon laaj kon ñoo ngi lay ñaanal doon guddoon wér xéwal yaa defaroon naka laaxira